xam ne andil nañ ko ko yéenekaay gii di las xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi ci réew mi yëngooti ndax ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci hôpitaux yi ak ñi nga xam ne ñooy agent municipaux yi ñoom nag daal nañu xëppati ñetti fan yoo xam ne dañu koy gërawa journal bi di enquête nee na coowul 45 milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax marché gré à gré ci ministère bi ñu denk wàllum environnement ñi nga xam ne ñooy député Yewwi Askan Wi mbir mi jël nañu ko yóbbu nañu ko assemblée nationale jamono ji ma ngi ci taabalu njiitul assemblée nationale ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi waa Pastef ñoom ñoom nag li ñuy sàkko mooy ñu ubbi cib enquête parlementaire ci 45 milliards yooyu nga xam ne wax nañ ne marché gré à la yoo ne ministère de l'environnement moo si jënd ay armes yéene kaay gi di Sud ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee li nga xam ne gouvernement bu Sénégal lay nañu ko ci 45 milliards yi lenn loo xam ne lu ci leer la wala lu ko ci yeey la yéene kaay gi di ca xët mu njëkk mu ñu fekk fa Mame Mbaye Niang ñoom waa APR waa Benno Bokk Yaakaar Macky Sall moom ci coowul trafic passeport diplomatique yi nga xam ne ñoo ngi ciy tudd présidence maanaam pare ak ministère bi ñu dénk wàllum affaires étrangères journal bi nee na am na ñaari gendarme yoo xam ne tudd nañu leen si ak ñoo xam ne ñoo ngi liggéeyee ci ministère bi ñu dénk mbirum affaires étrangères journal bi nee na démb la ñu leen doon atte waaye nag parquet bi procureur nee nañu leen tëj lu toll ci benn atu kaso journal bi nag nee na ki nga xam ne mooy gendarme Assane Dione moom nag nangu na ne encaissé na xaalis a kaay gi de libération xëyaat ci rapport bi nga xam ne coalition pour la transparence financière ñoo ko fësal ci lu jëm ci wees li nga xam ne moom la ñuy si ñàkk bi ñu ko xaymaa toll na ci neuf milliards de dollars yéene kaay gi de la Quotidien ñi nga xam ne ñooy impacté terre bi maanaam fi terre bi jaara ñu fa dëkkoona ñu état bu Sénégal nee dina dagg lu ci 65 hectares ci àllub si bi dara dina am fukki produit yoo xam ne dina wàññee ko ginnaaw concertation yi rapport bi jamono ci premier ministre jot na ci yéene kaay gi de la Tribune nee na askan wi xam na leen